Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous avons tous suivi le discours débat président de la République ce 22 février 2024. Euh, nous nous attendions tous à ce qu'il réponde à deux questions, deux des Sénégalais. La première préoccupation, c'est la date de l'élection présidentielle, conformément à l'invitation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 février. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'il fera ou où il sera le 3 avril. Euh, manifestement, dans ses réponses, le président renvoie à un dialogue. Nous rappelons au président Macky Sall est la seule autorité compétente pour fixer la date de l'élection. Nous rappelons au président Macky Sall qu'il ne peut pas mettre ensemble les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel et les autres segments, quelle que soit leur position dans le pays, pour discuter d'une date d'élection. Le Conseil constitutionnel a déjà arrêté la liste. Il doit, conformément à son serment du 2 avril 2019, respecter cette décision. Je confirme, à ma qualité d'ancien ministre de l'Intérieur, organisateur des élections présidentielles de l'élection présidentielle de 2019, qu'une date peut bel et bien être dans le courant du mois de mars 2024. Enfin, je réclame la libération, comme j'ai eu par le passé, de Bassirou candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour qu'ils puissent participer à la campagne comme les 18 autres retenus mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di wax nañu ñun ñëpp dégluwoon démb président Macky Sall ci discours débat bi mu def ak ñeenti journalistes yi mu doon jàkkaarloo waaye bi muy wax ñaari tontu rek lañ doon xalaat xaar ci moom ci question yuy sénégalais yëpp di mooy kañ la ñuy dem élection ci ni ko ko conseil constitutionnel laajee woon ak lan lay def à partir du trois avril wala fan lay nekk waaye bi ñu dégloo waxam ba mu jeex li ñu jàpp mooy tontuwut benn ci ñaari question yooyu daf ne ñaari question yooyu yëpp danaa dajale mbooloo ñu waxtaan luñ ci décidé danañ ko def ñu jàpp ne président Macky Sall moom rek mooy autorité bi nga xam ne bii moo am sañ-sañu néega ni bind décret ne date bii laa jàpp ñu def ci élection te it wax ko ne conseil constitutionnel bi mu defee procédure bi ba mu yegg jàppoon na ne ñaar fukki nit ñooy dem bi xew-xew bees amee ci diggante bi mu bindaat bataaxal ne fukki nit ak juróom-ñeent ñooy dem kon conseil constitutionnel mu wax nañuy dem élection kon jarul muy jéem a boole nit ñi comme niñ ko sama naataango yi waxee léegi ñuy fësal peut-être suñu diggante ne d'accord uñu maanaam politiciens yi d'accord uñu mu ne waa gis ngeen d'accord uñu kon conseil loo ci xalaat gannaaw nag ci conseil boobu la nar a dellu na yem ci décision bi conseil bi jël ba pare ndax olof day faral di wax wiiri wiiri jaari ndaari na njëkkee ndaari rek benn yoon ñu gàññe ñu ñëpp du temps damay dëggal aussi en tant que ancien ministre de l'intérieur parce que man maa organisé woon élection présidentielle 2019 que mën nañ bu baax organiser élection présidentielle ci mois de mars bii di ñëw enfin comme ni ma ko waxee woon également ci dernier point de presse bi Bassirou Diomaye Faye conseil constitutionnel moo ko jàpp ne war naa dem élection nañ ko bàyyi mu participer ci campagne bi comme fukki candidats ak juróom-ñett yi bokk.